Euh, Moussa Tagola euh, tur bi euh, tey ñu ñëw seet si leen ci ci salle bi ñu xamal ni ñu bokk nga ci champion yi nga xamante ni actuellement bu doon MMA dafa am roi des arènes mën nañ ne yow yaa ne ci bopp loolu la. waaw loolu dañuy liggéey boo xam ne biñ ko tàmbalee dafa yàgg parce que MMA bi mu fi duggee du daaw du daaw a liggéey ci yàgg na man nag maa nga door depuis 2015. jot fi am ay combat yu xaw a bëri yu takku tuuti daan mën naa ne Sénégal maa fi ëppale combat bee ba. Hmm. waaw te macha allah lépp yàlla dogal na ma def am ay ndab. Hmm. waaw. tellement boo doon wax ñaata combat nga am ci xayma ñaata combat. Euh, j'ai eu à faire six hmm. euh, sa premier combat nu mu demee woon ak kat nga ci laaleeloon. waaw sama premier combat ki ma si laaleeloon ndeysaan nu ma ko mos a fàttee maa ngi dajaloon ak maître Xuma maa ngi doon soog a dugg si aar bi naan ab kido. nekkoon centre zone sama maître Insa Diop gisoon ma gisoon sama taxawaay salle bi ne a am na discipline boo xam te ne amoon na fi ñu koy waaj a relancer waat pourquoi pas nga dem tenter ci sa parce que discipline boobu d'ici peu avenir la day fay. ma ne ko ah, dara met comme yaa ma tàggat yaakaar nga ni war naa mën a jokkonte keneen baax ma dem essayé bon boobu ma doon dajee ki ñu naan ma moom tamit bu doon def euh, même art bi ab kii doo nekkoon ceinture rouge man ma nekkoon ceinture jaune mu nekkoon ceinture rouge mais bon. bi may soog a yëg si bi amoon naa tuuti frustration parce que maa ngi doon def loo xamante ne lu bees la woon man parce que man képp ko ma xam si rythme bi la ma xamoon man j'évolue dans le milieu du bi école rythme bi man niveau international mais bi ma commencé def art bi par maître Insa Diop si laa découvrir MMA ma taxaw combat euh, fu ma met ko ma yàlla dogal ma am ndam si kawam waaw. sa vision ci MMA lan la. waaw man toujours dama koy wax Sénégal talent ñaari mbir la talent day jeex wala mu yàqu. bu jeexee ça veut utiliser nga ko maanaam exploité nga ko def nga si li nga war a def bu yàqoo mooy am nga ko mais jariñu la utiliser ko defoo ko dara te man sama mbëbët mooy sama talent bu jeex maanaam ma utiliser ko ba mu jeex def si li ma si war def def ay combat def ay promotion xam nga promouvoir les MMA Sénégal waaw. tey gis nga ñi nga xamante ne ay mbër lañ fii ci réew mi euh, dem à l'extérieur di di di di di pratiquer li nga xamante ne mooy MMA bi gis nga ko mel ni Reug Reug gis nga ko mel ni Bombardier Siteu tamit gis nga ko euh, boo leen gisee doomu Sénégal ñu yor drapeau Sénégal yóbbu ko bitim réew di ci combattant doon ay combattant yoo xamante ne ñu ngi ñu ngi xeex pour seen réew loolu ban yëg nga ci am. waa loolu dama si kontaan dama si am contentement bu baax a baax. Euh, di profité si télévision bi di leen félicité ñoom ñëpp di woo aussi yeneen mbër yi di leen wax ni seeni morom def nañ ko ñoom tamit mën nañ ko def parce que MMA mbir la boo xamante ne da koy bëgg jàng ko def ko waaw ñoom franchement maa leen njëkk si aar bi mais ñoom ñoo nañ ci def si jéego boo xamante ne yóbbu nañ ko foo xamante ne man ji tey ji loolu sama mbëbët mais ñoom jiitu nañ ma si waaw kon mënuma lu dul di ko rafetlu di leen ci santaat bu baax a baax di leen félicité bu baax a baax. di félicité rek rek mi mujjee def dernier combat am ci ndam di ko félicité di ko encourager bu baax a baax. Mm. ma lay jaajëfal bu baax. jaajëf ay